mbokki àdduna si yëpp nu ngi leen di nuyu te di leen ziar te di leen xamal ne noo ngi ci bis bi nga xam ne mooy bis bi jëkk ci safar ni nga xam ne ni lañ ko baaxoo di ko def saa boo xamee ne si nañ ci bis boobu ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim dana am ay kàddu yoo xam ne da koy jëmale ci xeet bépp jëmee ko ci taalibe yëpp jëmee ko ci jullit yëpp loolu yi tey jii mooy li nga xam ne moom la cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifat al aam li taifat al ay ayyadahu llahu wa nasarahu moom la bëgg a jëmee ci taalibe yi bis ni tey eh, xam ngeen ne ci kàddu yi muy bëgg a wax dana ci wax soññee soññi taalibe yi nammaat pas-pas yi ba ñëpp kenn ku ci nekk fu la fekkoon nga baaru fa bàyyi ko jëm fu ko gën a kawe dana ci wax itam lépp loo xam ne dafa aju ci projet yi nga xam ne moo ko tax a jóg muy yi nga xamante ne moom la naal fas yéene koo liggéeyal lislaam fas yéene koo liggéeyal Cheikhul Khadim loolu lépp dangeen ko dégg ci biir waxtaan bi kon ñi ngi ñaan bokki taalibe yëpp ak bokki jullit yëpp ñu déglu waxtaan woowu eh, te dégloo ko seen xel ak seen xol te fas yéene itam taataan ci ba jëriñu ci ni nga xam ne moom lañ ci war a jëriñoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi ma bokk sëriñ bi maa ngi nuyu ñëpp di yeesa sunu cant ci sunu borom di yeesa sunu cant ci sëriñ bi ci diggam ak boromam di yeesal suñu cant ci sëriñ bi diggam ak jaam ñëpp danoo amaat tawfeex ju rëy ñu fekkeewaat tertal weeru safar bii nga xam ne mooy sunu weer ñun ñi nga xam ne am nañ tawféqi sunu borom boole noog bi ndax bis bi nga xam ne ci boole cantam yëpp bis boobu ci weer bi la nekk muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ca safar kon sama kilifa yu baax yi nu jiitu di gën a fàttali gën a fàttaliku bis bi ci xéewal gure yi nga xam ne am nañ ko ci kon bis boobu mooy sunu lépp tey ak ëllëg ci biir fàttaliku bis boobu nag ak waajal ko fas na cee fas yéene cee gën a yeesal sunu cant dolli ci ay lu ñu ca mën a dolli sunu kem kàttan loolu moo waral kàddu yii ñuy bëgg jëmale ci wala mbokk yëpp yow bokkal sëriñ bi duñu tudd sëriñ bi mbokki jullit yëpp yi nga xam ne suñu boom mooru boole bokk réew mi te muy kilifay diine yi fàttaliku bis boobu nag te lépp ñu jëme ko ji ak cant dafay mel ni kon war nañ ci gën a yeesal na suñu lépp gën cee yeesal suñu jaayante li tax ñu di ci jiital yeesal suñu jaayante sëriñ bi day lépp ndax lépp diine ngi ci moom muy diinal islaam mu liggéey ci liggéey bu rëy yitte ju rëy jooju nag nga xam ne ci liggéey liggéey bu rëy lépp rek mi ngi jóge ci wéetal boromam kon sëriñ bi fi ñoo gis ba fiñ ko noppee gis boolewul ak dara boromam lu dul yonent bi gën ci mbindeef mi nga xam ne moom la ko boroom joxoñ mu nekkoon ci diggante boobu rek boole wala dara ak wéetal boroomam di ko jaamu ak bëgg yonent bi jaax ci takk di ko liggéeyal ni mu doon jaamoo boromam noonu la doon liggéeyal yonent bi kon sëñ bi moom nëbbuwul leer na naññi ci lu wér suñu borom rekk fi nekk waaye jaamu na boromam jaamu goo xam ne benn jàmm mënu ko weesu liggéey la yonent bi liggéey boo xam ne benn jullit mënu ko weesu loolu moo tax mu liggéey ci lislaam liggéey bu rëy buñ ma a teg bët kooku muy sëriñ bi ci biir jaamu yàllaam googu ak liggéey googu mu doon yonent bi ci liggéey lislaam liggéey bu rëy bii boo xam ne amul benn liggéey bu ko mën a weesu kon kooku mooy sëriñ bi noo gën a fas yéene jox bis bi àqam ndax sunu lépp ci bis boobu la jógee la ca dolli ko nag mooy jéem a jox sëriñ bi àqam sëriñ bi neexut a jox akam waaye nu xam ne noonu mu doon jaamoo boromam doon ko liggéey la yonent bi loolu rek la nu fi bàyyil kon war na noo xam loolu ci suñu bopp bu baax wuru noo taal daal lu loolu mun fi mun fi bàyyil nag nu nekk ci nam ko nam ko bëgg ci noonu lot nañ ci ndax moom fa mu nekk des koy xam rek fa mu nekk des ko yëg waaye mel na ne jaam lott na ca jéem a nekk foofee mu nekkoon waaye nag sañ nanu ko jéem a xam nekkoon ci li mu bëgg itam sañ sañ nañ koo jéem fas doon dëgg dëgg jullit fas doon dëgg dëgg taalibe la jeex suñu kem kàttan na suñu borom waxee ci alquran wal asr inna al insana la fi xawf illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr bu ñu xamee foofee sëriñ bi nekk dëgg lii alquran wax yaakaar naa dana doy ab soññu lu lot lot lot lu nu ñàkk solo mu jéem sunu kem kàttan barab bii ba bu koy wut borom rek la àndal wéer na diir kenn xamul ci fu mu nekk di wut barab bii rek fu gën a may wéete fu mu gën a mën a wéetale boromam gën ko faa mën a jaamu mu gën a mën a topp gi gën mën a topp yonent bi gën ko faa mën a liggéeyal loolu rek moo tax moo taxoon mu wut barab bii kon lu nu doye di doye lu nu ñàkk-ñàkk xam lu nu ñàkk-ñàkk dégg war na noo xam barab bi lan moo war ci barab bi barab bi nag ñaar rek fii wuti jariñu yàlla may tawfiq ñu ñooñ sëriñ bi àndoon nag moom bàyyi fi seen seen njaboot ak ñeneen ñi nga xam ne am nañ tawféex ba ñëw fi seen bopp parce que dëkk sëriñ bi ñooñu yaakaar naa ne war nañoo xam nañuy war a jëriñoo dëkk bi war nañoo xam it nañuy yàqale seen bopp ci dëkk bi kon ñi dëkk ci dëkk bi ñun ñëpp kenn ku ne ci nun na xoolaat boppam na tiin xool sëriñ bi fa mu nekk xoolaat boppam xool barab bi ba xam lan moo yaakaar moom la yaakaar ne moo yàlla ci barab bi barab bi la ca gënoon a la ca gënoon a baax gënoon saa noppale gënoon noppal mooy dëddu adduna moo gën a gaaw ci nu mën a jariñ fi barab bi waaye nag du yombul waaye nag njub mooy buntu lépp lu baax ku ne ci dëkk bi sa xel warut dem ci lenn lu njub ngir sedd ko barab bi ngir sédd sëriñ bi nan góorgóorlu bu baax ci góorgóorlu ci njub am nañu yàlla taw feexal ñoom mën nañoo rafet njort ne dañoo jóg jaar ci yoon wa waaye waaye lépp taw feex taw feex fi andi waaye xamuñu àqi barab bi te bala noo mën a jariñ ci ci barab bi dañoo xam àqi àqi àqi barab bi eh, képp ku fi nekk war ngaa góorgóorlu sa gem kàttan ci ñub liggéey yi bari na lool liggéey bala ci yàlla mën nga caa nekk taal ci sa loxo sunu sunu borom ku fi nekk njub góorgóorlu ci sa lislaam ci sa diine maanaam sa lislaam di ko sàmm sa kem kattan bàyyi xel sa yey sa kem kattan loo mën a aar ci dëkk bi lenn lu xeetoo ko sabaan nga di ci jéem a aar sa bopp sa kem kattan te jéem a xam sa wartiif te nekk ca daa di wax ne ab duna bu ci bànneex doon am kon mooy toog ba nga xam ne wóor na yaa ngi ci nekk ci sa wartif te wartiif nag damay wax ne jaamu yàlla moo ci jiitu kon nu góorgóorlu suñu kem kattan nekk fi njub nekk fi njub nu góorgóorlu suñu kem kattan nekk fi nekk fi lislaam lislaam laaj suñu laaj suñu kem kattan nu góorgóorlu nekk fi ak taalube ak taalube moo ñuy defaral suñu lépp ak taalube suñu diine la ñuy jëkk a defaral defaral nu sunu jikko sunuy jikko sellal la nu sunu xel ñu boole kook yitte yitte woo yàlla rek la ci sunu kem kàttan bu lool doyee sunu bu lool nekkee sunu itte nekk nekk fi ci nekk fii ci dëkk bi sëñ bi mu ne su ko jox akam waaye kon mu def ci sunu kem kàttan te la ci man naa man noonu am xel mu dal ne waxuma dara fi njot mu xel mu dal ne suñu moom dana nu gàtt ndokk tawfiix sëriñ bi ci suñ lépp suñ lépp yéwén ñi fi ñëw te barab bi tax leen a ñu xam ne ki ne ci barab bi moo leen moo leen yëkkati moo tax ñu ñëw ñëm si bi kon ñi fi dëkk buñ góorgóorloo ci yoonu waa yoon woowu yi nga xam ne li ma wax lépp mooy saratal mustaqim rek la ci suñu kem kattan yàlla tegul kenn ja benn jàmm lu la ci suñu kem kattan rek la ci mën nañu mën nañu caa gàttandu la ci la la la nga xam ne mooy mooy lépp nag góorgóorlu nekkee foofu nekke noonu ci barab bi ba noppi nag dooloo sëriñ bi am yaqin ci sëriñ bi. xam na sëñ bi lu mat a faggu faggu na ko fii ci dëkk bi ku fi nekk nekk fi nag fa war a nekke xéwal yëpp dana la fekk liñ faggu ci xéwal ñi fi dëkk luñ ko dara te lépp ngi ci yoon bi kon dara warunoo jaral nu ne fi nu di fi nekke di di di am yaakaar ne mën nañ fee nekk di jariñoo neneen ñu dul nekk fi ni fara nekk loolu moo ñi fi dëkk doon naa ko junj ci fan yee fii ku fi ñëw bëgg ñani dara waru laay kenn waru laay tax a jóg sëriñ bi te loo fi yaakaar mu dëgg ci yow sëriñ bi tax laa jóg nga ñëw diis diis diis diis ko soxla gaaral ko sa bopp teewloo loolu bu dëggoo la nga fa la nga fa ñaan da ko am ñaan nag kii ñaan ñetti tegtal la ñaan borom du ko gantu da lay fajal sa soxla fa saasa wala mu dencal la ko ëllëg gën ko gën a soxla mu fayal la ko foofa wala mu dindi la loo xam ne dañ nga moo gën moo moo moo moo moo gën ci yow lépp kon ñaan gi day faja sa soxla wala ñu denc la ko fa gën a soxlaa wala ñu dindil la loo xam ne dañ nga moo gën moo moo moo moo la gënal lépp loo mën a am kon ñaan du neen kon ku fi ñëw bu la fi dara andi na fi sëriñ bi rek andi ñi fi fekk si buñ soxla dara nañ dooloo sëriñ bi sëriñ bi fàggul leen lépp te lépp nga ci ko yoon wi waaye nag jaar fa nga war a jaar ñi fi dëkk nañ nañ nekk nañ jéem a nekk ci li ñu war a nekk lépp gàttal yiw yiw àdduna yëpp gàttalu leen ñi fi ñëw nañ jaar fañ fa war a jaar bu leen dara ca tax a jóg lu sëriñ bi bu ñëwee na leen sëriñ bi yëkkati ak yu mën a am buñ ko teeloo te ñaan ko fi ñi noonu rek lay mën a deme kon ñi ne dëkk ñi dëkk ci dëkk bi nan doyloo sëriñ bi te nekk ci li war a nekk nekk ci li war a nekk nag jaamu yàlla moo ci jiitu ak liggéey sëriñ bi sëriñ bi te yàlla tax nekkaat la ca dellu la ca dolli ko nag mooy nun kenn ku ne la say lay sa métier la nga xam ne mooy sa yaakaar moom ci ngay yëngatu nga ci yëngatu tàllal si loxo suñu borom la nga ca la nga ca la la nga ca bëgg la nga ciy wut lépp day gàttandu lépp day yomb lépp day barkeel suñu diggante nag ci suñu suñu suñu jariñeente ñun ci nekk ci njub sàmmanteeg sa diine sàmmanteeg sa taalibe koo amee àq jox nga ko ko koo amee àq jox nga ko ko kenn du loru ci yow te ku ne ko mën a jëriñ ku ne dana la mën a jëriñoo. loolu mooy tënk bi rek lu war yomb la bu ko seetee noonu lu war yomb la dëgg la jafe na lool niru na jafe waaye lu war yomb la ndax nit ki mucc rek la bëgg nit ki jàmm rek la bëgg nit ki taange rek la bëgg nit ki xéwal rek la bëgg lépp ngi ci yoonu njub ak diine ak utaal bi noonu rek la demee eh, lii lii may waxee nag. juul woo ci dara laa biir rek laa ci juul nasiha waaye ak diinu nasiha nasiha dong laa ci jublu la ma yéene sama bopp lépp ma yéene leen ko la ma bëgg sama bopp lépp te yëgale moom la may bañal sama bopp lépp ma bañal leen ko la may ragal sama bëcc sama lépp ragal leen ma ragal leen ma ragal leen ko loolu dong la demee nasiha dong la ñàkk xam rek waaye ku xamoon dëng mukk ku xamoon ñakk ñàkk diine mukk ku xamoon taalu de rek ngay doon ndax yi wa nag yi wa laaxira rek ci nekk jàmmi àdduna ak jàmmi àxira jàmmi àxira ci loolu rek la nekk ñàkk xam rek moo fi nekk waaye ci loolu waaw li bëgg li doomu aadama bëgg ak teraanga ji ko yàlla defal lay tax du ko ñàkk moom loolu nag ndax doomu aadama yàlla suñu borom teral na ko ba noppi teral na na ko ba noppi waaye nag lu mu gën a xam teraanga ji gën koo sàmm te sàmm gi nii rek la doon dëgg-dëgg jullit doon dëgg-dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg taalube di nit ku baax di nit ku yiw ci loolu rek nga mën a eh, sàmmee teraanga jooju nga xam ne yàlla ko doo ko bindal waaye bu dul loolu sabaan bi teraanga jooju day ruus day dellu gannaaw ba nga gën a suufee moom du doomu aadama màgg day dema dema dem ba yës bàyyi ma waaye ni doomu aadama maam bu fonkee teraangaam jooju àjjana rek la ko jëmee euh, la ca dolli ko rek euh, moo bii di ñëw loolu nu ko mu ngi fàttali mbokki lislaam yi bokki taalibe yi bokk yi nu yi bokk sëriñ bi ñu dul nu tudd di tudd sëriñ bi fàttali am tawféexi dëkk ci dëkk bi maa ngi koy fàttali ñëpp bis boobu di ñëw muy bisu cant kenn ku ne xam ci teraanga ñu ko jëmee ci dëkkandoo yi ak gan yu yiw yi fi ñëw kon nag eh, alhamdulilah rabbil alamin eh, waa dëkk bi ñoom yaakaar naa ne loolu xamal nañ ko seen bopp xam nañ seen warati ko eh, ndax gis naa ne sax ñi dëkkul ci dëkk bi ñëpp ñi ngi waajal bés bi di gàttandu gan ñi ñi ñi ngi koy indi ci biir dëkk i ñi ngi ñu gan ci yoon yi di bëgg leen a teral loolu lépp alhamdulilah ñu ko ñu ngi koy waajal kon noonu rek la bis boobu nañ ko waajal ñëpp xam ne liggéey Sëñ Tuubaa bu rëy bii waxuma sax nun nun waa Sénégal waaye jur yëpp ko bokk jur yëpp ci yëpp ci yariñu kon waajal bis boobu bisu cant gi bu baax a baax da ca dolli ko nag moo di euh, fii fii ma toll ko xam sama bopp la samay kilifa daanañ ma jëwee ne dama bëggul dara waaye ma ne leen bëgg naa dara li ma bëgg a jafe daanaa ko toll naa fekk samay kilifa te loolu mooy mooy am li ma bëgg jafe rek waaye ci biir loolu dafay mel ne bëgguma dara ndax toluma ko te xawma ci bopp dara tolluwaay bi nag tax na alhamdulilahi rabil alamin maa ngi sant sama kilifa yu baax yi yi ma woon ah di sant sunu borom di sant sëriñ bi ndax man xam na sama bopp waaye li ma fi fii du man indi ko fi sama bopp kon nag lu may dolli muy gën a joxe sama bopp rek loolu rek la eh, nag moo tax sumay kilifa ñu fi jaar ñëpp liggéey nañu liggéey yu rëy liggéey rafet ma ci Seex Sidi Maxtaar mi moo ko bu ñu mën a teg bët ak ñu mën a teg bët ñu mën a teg bët liggéey bu rëy la fi def kooku nag yàlla dogalee lii man ci man dama war a daal ah, xanaa laxasaayu bu dëgër jóg ak yitte ju rëy waaye nag eh, foofu damay daal dellu saat nag ci cant gu rëy gi nga xam ne maa ngi koy sant bokk yi yi jiitu moy mooy ma bokk sëriñ bi maa ngi leen sant cant gu ndax wàccoon nañu man wàccoon nañu man mel na ne am nañ ci man yaakaar mel na ne am nañ ci man ak doyloo loolu rëy na lool te man leen ca bañ a fekk mu doon mu doon sama tënk boo xam boo xam doo xam na may doxe waaye alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant maa ngi leen sant cant gu guri xam naa liñ ma defal kenn ku ne da nga si sa wàllu bopp boo xam ne yaa ko moom yoonu kenn nekku ci te sa wàllu bopp woowee la la ca ëpp la ca gën la la ca gënal mooy sëriñ bi kon nag képp koo xam ne am nga ci man yaakaar ngi sëriñ bi am nga ci man ak doole ngi sëriñ bi mën naa la cant ah ma dellu si nag ci taalibe yi ñoom it day wax dëgg yàlla wàccoon nañu man gis naa yaakaar yi gis na doyloo gi wàccoon nañu man xam naa maa des maa ci des waaye lama waxoon fee la ma waxoon fee sëriñ bi maa ngi nii nag xaw ma dara ci sama bopp doonu ma dara ci sama bopp mënu ma dara ci sama bopp booba laa ca waaye dal ñi ma bokk sëriñ Tuubaa wàccoon nañu ko man mboolem taalibe yi lu bokk sëriñ Tuubaa wàcc na ñoom kon maa des gannaaw nam melu sama borom jumtuwaay yi benn jumtuwaay ëpp ci gënu ci moo tax yàlla na ci mu bëgg xam-xam ci jéem sax dañu das ak si moo moo mooy ci man sama jikko la musuma xalaat mukk ne jataay bii danaa fi nekk sama téeméeri xel mosu ko xalaat waaye nag dama xam gi ma xam xam-xam te yéen ñëpp njariñ moo taxoon ma bëgg xam-xam doon ca def samay kem kattan dama ci man ñépp ñëpp ñëpp mën a xam ba ba ñëpp mën a jëriñ loolu moo ci nekkoon moo tax bi nga xam suma bi daal agsi fii yàlla dogal lii ci man la jëkk xalaat naa def jàngukaay boo xam ne jaboot sëriñ Tuubaa gépp maanaam ñi nga xam ne ñoo jëkk ànd ak sëriñ bi seex yi ci gàttal waxuma la sax njaboot sëriñ Tuubaa gi ñu tudd leen tudd waaye kon seex yi seex yi yëpp naa jàngu boo xam ne kër kër kër kër seex bu ne sa njaboot dana ci dana nekk ci jànguwaay loolu mu xalaatu naa ko lu jiitu léegi moo tax bi liy amee sama xel demul ci dara lu lool loolu rek laa moom amoo soxla seet ma sama xel dellu ci dara loolu fas yéene nag guud taxaw ci jàngu boobu sama kem kattan nag xaw ma tey laa xaw ma ëllëg laa waaye la ci sama kem kattan moom maa ngi ci ci laa fas yéene nekk alhamdulilah bi laa ca fan yu jëkkee rek laa ko wax sant nag njaboot suñu Tuubaa gii nga xam ne ñoo ngi ci biir ñoo ci biiram te alhamdulilah yàlla xéeroon leen ci xam-xam loolu di nekk nu nekk ndoo ci woon ak am lu ñu ma ci jiitu lu ci raw-raw noo ci nu nekk ci woon nekk ndoo ci woon loola ak Cheikh Mouhamadou Bachir mi sama xalaat yépp ci lu lu jëm ci liggéey bi jiitu ma kenn teg ko ci loolu ñoom laa daal di waxtaanal dégg nga ñoom laa waxtaanal ñoom xam nga leen di nga xam ne mooy sama itti jooju mais nañ ci daal di jublu seet na muy mën a amee loolu ñu ngi ci ñu ngi ci balaa gi léegi alhamdulilah ci taxawaayu sax bas mi xabaar bi noppi na. man daal sama lépp dëgg la liggéey bi yaatu na waaye euh, laaj yeneen yeneen yi ci aju moom kooku maa ngi ko doon doxee te yaakaar na dama ko gën a mën ah, waaw liy dëgg dëgg dëgg yitte yow liggéey bi moom mooy mooy mooy mooy jàngu ko loolu maa ngi maa ngi maa ngi ci wàll yëpp ko ci mu dajee mu dajee mu dajee itam ak ak moo ko wax wax wax na ko bàyyi fi moom wax ne lu sotti la ba noppi noonu la ko bil Mustafa libanal quddus madrasata biha yazulu ala wal jahlu wal kamal noonu la ko waxee ci ci xasde goo xam ne laqad jaakum la ko tënkiir loolu lu leer la kon xëy na man am lu leer la naa sant yàlla loo xam ne loolu tawfeex la man man amu amu amu amu gannaaw ngërëmal sëñ bi li nga xam ne moom moom moom lay wut tey ak eh, ci xam-xam laa ko laa laa ci bëggoon a kon nag eh, mboolem bokk yi nga xam ne mooy maam Ndiaye bokkul sëriñ bi di di di tudd sëriñ bi ak mboolem njabootu sëriñ waa gi muy taalibe yi maa ngi leen di yëgal yitte jooju ñu ngi ci woon nag fa tabaarakallaahu taxawal nañ ko tàmbali liggéey bi rek mu des plan bi noppi na li laaj sax bari na lool waaye sëñ bi dara bariwul si moom ci moom nekk rek ci nekk nekkal sëñ bi rek ci nekk nekkal sëñ bi rek am nañ ci xel mu daal am nañ ci affaire jot ko mu sëkk kon incha allah itam bis bu mag bii bu jàllee ba weer wi jeex gàmm bi yaakaar naa ci ay bis nga xam ne mooy ay bis gi mujj ci gàmm bi yaakaar naa ne yitte Cheikh Bass Cheikh Bass ñi ñi mu ko àndal yaakaar naa ne bu boobaa tax nu mën a tàmbali liggéey bi kon na ko ñëpp xamee noonu loolu waaw aw ma sikki sàkk ne ñëpp ànd nañ ci amal ndax liggéeyu sëñ Tuubaa bi xam naa ne yéene nañ ma ko waaye ni ma nag yéene naa leen ko yéen ju ko a liggéey sëriñ bi euh, xam-xama ci jiitu liggéey amul bu rëy xam ne mën naa sotti ci bi fàggul nañu lépp fàggul nañu lépp waaye booy ba nu ñeme ko nag xam ne itam nag ànd an faw nu yëg ko il faut que nag fàggu nu yëg ko waaw il faut que nu yëngutu il jëm ci xam-xam waaw fàggu nañu lépp waaye il faut nu jëngu yëngutu jëm ci xam-xam jëmee ci suñu lépp waaw waaw ba ba ba ba ba bëgg fa màgg fa nu yóbbu ko fa yóbbul ko ko fa ko ko dëkk bi boobu kenn boo jëkkee wax loolu dama jàpp dama doon la daaray xam-xam yi jiitu woon muy Madina mën a war foofu la maam ima Iliman Malik foofu la foofu foofu la foofu muy Madinatul Munawara muy Baxdaad muy Basra muy Masra eh, yooyu yooyu foofu kaggu yi foofu la nekkoon waaye eh, eh, eh, sama yitte yéese lu ma yéese lu ko yitte yitte joojee la àggale yitte jàggale woon foofu xam-xam sama yéese lu ma sama yitte yitte joojee maanaam li ma gënoon a ñor sax fii ba tey ba waxaguma ko mooy yaakaar ji nga xam am naa ko ci gone yi nga xam am naa ko ci am naa ci ko am naa ko ci gone yi muy gone yi nga xam ne njabootu suñu tubaab bi ci ci ci ci ci bokk ci njabootam gis naa ci ay gone yu ndaw yoo xam ne ñëpp ci xam-xam lañ jëm lañ jëm bëgg xam-xam lool te fa tabaarakallaa booy ba seen xel daal ndax suñu suñu suñu tubaab faggul na leen seen xel yi luñ bëgg luñ bëgg am ci xam-xam dañ ko am kon maa ngi ci gën a ñaan ñoom gone yooyu nañu seen xel dal nañu góorgóorlu ci loolu bëgg xam-xam googu nañ ci def nañ ci nañ ci def seen lépp nañ ci def seen lépp euh, di ñaan nag ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa ñun ñëpp ñun jóg nag ci gona yi góor gën leen cee soññ gën leen ci taxaw boole di di leen ci dimbali loolu moom liggéey bi ñuy liggéey Sëñ Tuubaa loolu bu na ci loolu jiitu nañ jóg ci njaboot gi na ñëpp njëbal di taal muy muy muy muy mu mu muy ñi nga xam ne dañ dañ leen tudd sëñ bi seen njaboot na ñëpp jóg ci taxaw njaboot bi ñu jàng bokki taalibe yi ñëpp nañu jóg nañu jóg xam ne xam jàng mënut a ñàkk. ñoo xam ne daa mel ne dañoo jombale seen bopp dañoo jombale seen bopp xam-xam defe ne xam-xam jombul kenn ñëpp war a jàngi waaw taalibe yi dañoo defe ne rek dem liggéey jox àddi ah, ñëpp war a jàngi du yàq dara. jàng ak xam-xam wërsëg bokkul xam-xam moom day njëriñeel boppam te dara mënu ko wét xam-xam dara dara mënu ko wecci dara mënu ko wecci kon nañ ñëpp nañ ñëpp nañ ñëpp nañ ñëpp nañ jàngi waaw du ñu yàqal dara du yàq suñu taal bi du yàq suñu murit du yàq suñu dara day tax nu gën a wëlëre rek njaboot sëñ Tuubaa gën a wëlëre rek ndax luñ njaboot sëñ Tuubaa lu ñu bari bari bari bari xam-xam lu ñu bari bari bari xam-xam ñoo ñoo jiitu ci yar ñu jiitu ci teggit ñoo jiitu ci jëf ju baax ñu mën a doon ñoo bokk ñoo jiitu ci jikko yu baax ñoo ñoo jiitu ci loolu lépp xam-xam day day day day defar ak a dolli waaye du yàq dara kon taal bi noo noo noo yem képp na ñëpp góorgóorlu si njaboot gi ñu jàngi jàng moom dana daan dem ba xalaat si sax colonialisme euh, bi moo doxoon diggante nit ñi ak jàng xam-xam dafa jaar dëgg dëgg la am na ci yoo xam ne nag fa tawakkal la kon ñoo si mënu leen mënu ci woon dara ba sëñ bi fa feeñ feeñ ci seen biir mënuñu ci dara euh, waaye nag teq nañ ci lu bari nag ndax euh, ñi nga xam ne euh, dañu jàpp ne jàng tubaab rek lañu war a def ba noppi di jullit na seen xel dellu si ni ñu jàngee tubaab. yitte ji rek ci am solo ni ñu jàngee tubaab ba ak jafañ càggee buñ ko boolee woon rek jàng seen diine noonu lay demee bu fekkente ne nag xam-xam ne bi mat na xam-xamu diine bi mat kooku mooy jëmm ju wér te xam ne njaboot gi ni ñuy jàngee tubaab ni la ñu mën a jàngee arab Euh, nee nañ mën a jàng gën a xamal seen diine waaye xam am sa di pour euh, xam la nga war a xam ci diine xam la nga war a xam ci tubaab nga boole ko waaye loolu texe la loolu loolu bu àndee ku njub ak diine texe àdduna ak àllaxira la fii ñu dem ci biir ba ñu ñu jàng alxuraan euh, boole nañ ko daal defee rek jàng alxuraan xasida maanaam loolu loolu nag kenn ku ne kàddu bu ko bu ko yabee ñetti kàddu fii bis ba waaw bu ko yëwul na jàng lam lam mën teel a jàngal ko boppam bu fekkee ne ku mënut a jàng la na na na wut ñu ko jàng jox leen jox leen addiya loolu loolu loolu sedd seen xol waaw loolu la feeg bis ba waaw waaw ñaan ci nag jàmmi réew mi waaw jàmmi réew mi na ñëpp ñaan jàmmi réew mi te it man sa am yaakaar ndax yëngu-yëngu yi bari na ci adduna bi te yàlla lu ci ñu ñu toon musal kon nag nan gën a ñaan mu gën yéen gën musal waaw nan ñaan jàmmi réew mi man ñaanee suñu bopp ba noppi ñaan ñaan suñu bopp wala nu gàttandul bopp xiir nu ci bopp xiir nu ci diine xiir nu ci Sëriñ Tuubaa xiir nu ci lépp lu baax buñ ko defee ba noppi nag nan ñaan nan naan réew mi waaw ñaan jàmmi lislaam nag itam waaw waaw maa ngi sant nag ñëpp sant bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi sant diine sant kilifa yi adduna yi maa ngi sant ñëpp. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci digalu sëriñ bi ni mu ko waxee rek amul dara luñ ci leeralaat ndax lépp leer na wax ji mat na sëkk ni mu ko daa waxee kilifaam yu tëddee rek noonu lañ ko koy waxee. genn kàddoom gi moo gën suñ bindee kàddu ndax yéeg-yéeg biñ ci am eh, ku dégg wax ji. xam ne wax la jox ne ci biir xollat la ko sëriñ bi moo tax ku ko dégg ci sa biir xollee tab bi kon nag li ñuy def rek mooy ñaan ku mu yàgg fi lool te mu ànd ak wér ba yaakaar ji nga xam ne lislaam jëpp ak njabootu Sëriñ gépp am nañ ko coom te ñëpp maasu ju ko dimbali ñu ba yaakaar ji lépp mu mottali ko nu kawe jortam ci barke Sëriñ Tuubaa ndax xam ne ne yitteem jëpp génnu liggéey Sëriñ Tuubaa jël yite ji di jooy lii mu fàttali it ci liggéey it ñëpp dégg nañ ko seen bopp ndax waxoon na ne amul jënd yite jur moom muy liggéey jàngukaay bii nga xam ne moom rek desoon ci naale Serigne Touba yi nga xam ne bàyyi woon na ko fi muy liggéey bu rëy di somb bu mag boo xam ne ni mu ko waxee rek fanweeri milliard ak juróom-ñaar mooy li koy liggéey lépp ba àgg. waaye nag eh, sëriñ bi junj na ko sëriñ Tuubaa dara bëriw ci woon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne may mu nangu xol yi nangu ko gën a te xol yi nangu nañ Sëriñ Tuubaa te duñ ko gàn dootuñ ko gàntal nii mu ko bëggee rek nii la nii la nii la koy amee yàlla lépp sotti ci këram boo ubbi ko ñu ko yéenee. liggéey yi fi fekkoon ah, Cheikh Sidi Moussa tàmbali woon ko am ko bàyyi woon yooyu yëpp sëriñ bi di génn xaalis bu bëree bëri di ko ci def ngir àggali liggéey yooyu ndax waxoon ne balaa tàmbali ngir liggéey ay fa seen liggéey yooyu sori ba ñu ci la ndax boobaa léegi def bari na lool bëgg mat ay milliards kon loolu na ko ñëpp xamee noonu ndax moom lu agsi ci moom rek day daal di jàll ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi kon nag dafa boole mottali naal yi fi fekkoon ak sumb naalu boppam leeral na it waxtu ko bëgg a tàmbali mooy ay bis gi mujj ci yor gàmb yi bu demee ba jege si dana ko wooteel boppam taalibe yëpp dégg ko ngir xam ne itteel gi mu ko itteel ak ñor gi mu ko jor ndax ku dégg ni mu ko waxee rek xam ne ittee ma kon nag eh, ñu ñëpp waratuñu am jën yitte lu weesu fexe ba laxasaayu ba nii mu ko bëggee rek suñ borom dimbali ñu ba bokk ca ña koy sottal ndax ba mu ko bëggee rek ci la ko suñ borom dogal ba mu ko bëggee ci la ko Sëriñ Tuubaa fekk si di jeexal ak di fàttali bis bi nga xam ne mooy bisu màggat gi nga xam ne moom la sëriñ bi doon woote muy dibéer eh, di fukki fan di eh, fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-ñett. ci weeru tubaab ci weeru octobre yi ñu nekk dëpp bisu di di bisu bisu dibéer kon sëriñ bi nga koy fàttali ñëpp di ko di ci soñ ñëpp ñëpp fekk si ko fi fii ci jàmm delluwaat ci jàmm te ñëpp itam li leen tax a jub muy jëfe ndigalu Sëriñ Tuubaa ñu daje ci ngërëmu Sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. أمن الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكر أذهب عني الله في قرن بصار